suratul laala saar la woo xam ne ne nañ yonent bi daan na ko jàng ci ajjuma buy julli juma rek mu ne déedéet wal xeeday ni yonent bi fonkoon na daan ko jàng ci ñaari xeet yi korite ak tëbaski fonkoon na lool di ko ca jàng rek ñu ne déedéet mu ne wal watari yonent yàlla maama daan na ko jàng ci watar dafa jël aji mag mu yóbbaale rak waaw dafa jël lu mag mu yóbbaale rakk arab dafa bokk ci seen wax loolu xam nga bu ne wal watari te yow la nga miinoon ci watar wetar mooy kul wala xat ak falaqi ak naasi daf ko jël mu yóbbaale safa dafa bëgg a war yonent bi daf ko daan jàng ci safa ak wetar rek loolu tàng nga dégg léegi-léeg arab yi naan samsay nii xamaray neeg lay-lay ni <laughs> ci waxi ne arab da ci am nga ne samsay ni wala xamaray ni wala lay-lay ni waaw waaw boo ne lay-lay ni mu na mu ñaari guddi ñaari guddi xamut di guddeeg bëccëg rek la ci namm sam say ni ñaari jant amu jant ba weer la ci namm kon nag bu ne wal watari liñ ci namm safaak wetar la ci namm yonent bi da ko caa daan jàng dégg ko de ñu jëlee ci la lii may bëgg a wax taarix la moom nañ ko jàpp ñun ñëpp aaxir salaatin sallaaha rasulullahi al qaraa fiha suratul ala wala suratul ala wa qul yaa ayyuhal kaafiruun bu la laajee yonent yàlla Muhammad julli julli timis ji mujjee julli xam nga moom timis la julli julli gexe ba set mu julli suba yoor yoor mu wàcceeb liggéey hmm? timis googu mu mujj julli mu ne bu la laajee neel suratul laxlaa la yonent bi mujjee julli timis mu ne moom la julle jullit timis googa lu mu ca jàngoon sóoratul laxlaa moom la ci jàngoon wala ala moom la ci jàng ak xul yaa ayyuhal kaafiruun bu njëkk bi fatiha sóoratul ala rakkab ñaateel bi fatiha ak xul yaa ayyuhal mu dem ci troisième rakk taaye selma loolu la mujjee kon nag sóoratul laxlaa mu ne saar bu bëri njëriñ la saar la woo xam ne borom xam-xam yi nee kiis la kiis la ndax lu tax mooy kiisu yonent yàlla muhammad moo tax da koo fonkoon di ko jàng kiis la ci yonent yàlla muhammad ndax yonent bi yàlla fa ne ko sa nuquri uka fala tansa bul sonnati ci téere bi di ngat-ngati lu ne nga di ci def yàlla ne ko man maa la koy xamal waaw bu jibli wax waxal man maa la koy xamal looloo tax sax boo demee ca nit ñu baax ña di jël sóoratu laxlaa di ko def euh, dégg nga kiis rawatina aaya boobu nag sa benn mag mu ni ma bu dee gune de ko bindal juróom-ñaari yoon bu dee mag nga di ko bindal juróom-ñaar fukk waaw sa nuqul uka fala tansa kiis la ñu dem soratu laala haddul kalimaati limi ay baataam neel soixante-douze baat la juróom-ñaar fukki baat ak ñaar moom la soratu laala am wa haddu huruufi limu ay xarafam moom suratul laala deux cent quatre la waaw xuruf ay xarafam ñaar téeméeri xaraf la ak juróom-ñeent fukki xaraf ak ñett waaw suñ ko multiplier par dix kom nañ ko daan defee ñu dolli ci zéro mu jox ñu deux mille neuf cent trente kon suñ ko jàngee bam jeex daan ci am deux mille neuf cent trente tiyaabo xam ci deux mille neuf cent trente bàkkaar yoo xam ne dañu ko faral kon kat lii lama <laughs> ma daan wax lay wax di yàlla nañ ko muudoo rek waaw yàlla nañ ko muudoo uh-huh. kon alquran na ngoog bëri njëriñ soo seetee tarti bu nusool bi muy wàcc li mu doon toftalante ñu naan iqra njëkk wàcc musamil topp ci muddasir soo ko toppee noonu mooy juróom-ñetteelu saar mooy juróom-ñetteelu saar saar wii boo ko seetee nga dalee ci sóoratul baqara di kont par saar par saar bi ngay ñëw ci sóoratul laxla yaa ngi xam quatre-vingt-sept saar juróom-ñett fukki saar yu tegal juróom-ñaari saar waaw ñu dem saar wu yonent bi bëggoon la nag wii Eh, ako ko bëggoon da ko daan jàng lu bare bare bare kon nag man ak yow nañ koy jàng lu bare bare bare ndax yàlla daf ci tàmbalee sàbbal te moom ku bëggoon tudd yàlla la yàlla dafa wax ne sëbbihi sëbbihi sëbbihisma rabbika waaw xam nga siqa bi ñëw na ci alquran ay façon ñëw na ci sabaa mu nekk fexlu almaadi sëbbihi fexlu amar la yu sëbbihu nag di fexlu mudaari majhul yu sëbbihu hmm? yu sëbbihu ñaata la ñaar sabaxa sabaxa ñett ba ñu ne ci dañ ko daan wax muy neex lool hmm. siqa yooyu ñëw na ci yàlla wax ne sabaxa sabax na lillaahi sabaxa mu nekk feelu maat yu sabbihu dana sabal muy mu daarew sabbihi ñëwal te fiyal yi ñett yooyu la mu xam ci yéen naaw kër yi hmm? sabbi na nga sàbbal yow muhammad laa wax muhammad ne ko kan mu ne isma rabbika tuddal sa borom waaw tuddal sa borom tuddal yàlla laa wax tudd tuddal yàlla waaw ban borom mu ne al borom bu kooye bi laa wax na koy tudd boo seetee foofu ci suuf ci digg bi ci suuf rek ci ko ci kaw sa laa bëgg ci xawlul jumóor ñu naan madina laak wa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yuhibbuha loolaa la bëgg a waxal ku ko bëggoon la li kasrati mastamalat hali minal hulumi wal xayrat saar yi dafa bëri ay xeeti xam-xam bari ay yiw moo taxoon yonent yàlla Muhammad bëgg sa bi isma wa fil hadis ñëw na ci hadis su ila Aïsa bi ay shay'in kaana yutiru rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi lu mu daan defee wetar xaalat Aïsa tontu ne kaana yaqra'u fil ula gis nga la sabbih isma rabbikal a'la wa fi saani qul yaa ayyuhal kaafiroon rakk bu njëkk bi daal sabbih isma la daan jàng rakkam ñaareel qul yaa ayyuhal kaafiroon wa fi saalis bi qul huwa allaahu ahad kon mu waxee na la watar na ci wetar gi dafay yóbbaale rakk ya muy ñaari muslukaay yi Aïsa moo ko nettali te Aïsa nag moom. hadis bu mu nettali dëgg la ndax moom moo nekkoon yonent bi waaw daan tëdd moom guddi moo tax bari na lu mu nettali lu baree baree bari borom xam-xam yi dañ koy saxal ba saxalal nañ ko ñaari junne hadis ak lu teg ñaar téeméer ak juróom-benn waaw sabbihi na nga sàbbal laa wax isma rabbika sa tur borom al ala borom bi nga xam ne moo kowe lépp waaw alla si borom bi nga xam ne xalaqa moo bind waaw moo bind fa sawaa mu yemale lam bind du nit rek di waxoon naa la ci asamaan si na la jëlal sa kordo nga teg waaw maatara min futóori waaw doo ci gis benn toj toj doo gis itam benn duux duux bu la neexee nga jël sa kordo teg waaw lu la neex rek tegal waaw waaye noonu yàlla bindee doomu aadama bindee asamaan si noonu la yàlla defee doomu aadama itam fi war a xóot xóot fi war a ruqi ruqi fi war a def lu ko neex moo tax mu ne fa wallazi na nga sàbbal yàlla mi nga xam ne xaddara moo nattale lu ko neex fahadaa mu gindi ña ko neexit yàlla moo nattale lu ko neex waaye it moo gindi ku ko neexit ah, lu ko neex yàlla ko nattale mu xam ca kaw suuf diir baag nam xamee yépp yàllaa ko nattale waaye yàllaa gindi it ku ko neex kon nag yàlla yàlla gindi ñu walla si tuddal yàlla laa wax buur bi nga xam ne axraja mooy génnee almarha sàmmukaay yi mooy mbopp borom bi nga xam ne mooy génne mbopp mooy taw ba pare xàll bi sax ñax sa jur gi mënuloon leen a yore yàllaa la wutal ñax mu ñuy lekk waaw yàlla nee na nanga nga yàlla mi nga xam ne mooy def loolu fa jaalahu mu def ko xusaan mu nekk mbopp moo xam ne ah waa daa wow koŋ boo demoon ci àll bi xam nga ko gaa yaa ngaay gubi su fa nekkoon di tooy day nëb yàlla bañ mu nëb mu wowal ko soo demee ba sa ngooñ jeex nga dem boobi moo tax doomu aadama bu weddee nit bu weddee yàlla xamul lu muy def ñaama bu fa continué noonu tooy noonu day nëb yàlla bañ mu nëb mu ne nañ ko wowal suñ ko wowalee doomu aadama mën nañ ca soxla ay mbir la ca jiitu bu ko neexee mu dem boobi ca jox aw juróom ñu lekk ñu ne bu ko neexee itam mu defet ci ab toolam bu ko neexee itam mu defet ci ab jànkam lu mu ca bëgg a def mu defet ko ci am néegam wala néegu sàmmam lu ca bëgg a def loola yépp la koy man mooy bu kon fa jaxaloo xusaa an ahwa yàlla nee na maa defal mbopp mu wow moo tax doomu aadama maa xarraka bi rabbikal kariim ja waxoon daal lu war di dillu la <laughs> lu la xor yàlla waa doomu aadama yow yàlla fa ne def kay man a ñaxtu jot ah, dafa mel ni yàlla fa ñaxtu ci nit ki lu ne mu defal la rek nga muy weddi rek doomu aadama di weddi rek lu ne bayal la tool nga am sa gerte am sa dugub mu ñax ñaxal bi yëpp mu saxal ko ñax nawet bi jeex mu la la xaaral ma la koy wowal defaral la ko ba mu jag wallaay boo demoon caalib da nga gis xam ne ñax mi ni muy rafetee macha allah boo dee ab gub kët ba dugg wala yett kët da ngay muñ rek yàlla defalal la loolu ba pare gëmuloo yàlla lu la yàlla sant doo ko nangu nga defar ci sa néeg loo bëgg a defar nga defar ko ci nga xëy dem sàmmi dem ci àll bi fu la neex nga sàmm. sàmm bu la neexee it nga yóbbu sab rato dem rato ba doyal ñëw indi sa ñax lool boo wowutoon na koy man toomaa yéen baykat yàlla ne na fa jàngalu ku saa an lay jàngal bal jàkkante sa nuquri uka daañ la jàngal alquran nii fala tansa ba doo ko fàtte daañ la ko jàngal ba doo ko fàtte ñu ne nag ilaa ma saa allahu waaye la neex yàlla nag man nga koo fàtte la neex yàlla antan saaw benn nga fàtte ko bi nasqi tilaawati yi moom la ñuy wax maanaam ñu folli ak jàngam mooy yooyu nga xam ne yàlla da koo da koo supprimer ci alquran loolu moom laay wax mooy ilaama sa laaw loolu la neex yàlla la neex yàlla mooy li yàlla supprimer asaaniyatu wa saaniya isaa sunni isaa sunniya farjimoohuma albatt ci sóoratu noonu kooku dañ ko folli boo demee amut folli lañ ko kitaabatan wa qiraatan waaye wa baqee man gis nga yàlla lu ko neex lay def njaaloo ah. njaalokat bu góor ak bu jigéen isaa sunniya yàlla nee na far gi moo xuma albatta na ngeen leen dóor dóoru dog te mooy nangeen leen rek boo boo demee ma ne man suuxan kitaaban da kenn du ko fa bind téere boo dem fekk mu bind ko boo demee xamal na daa yàq kon man suuxan kitaabatan waaye man suuqan qiraatan dañ koo dañ koo folli ci jàng kenn du jàng alquran di ko jàngaale waaye nag seetal li ci gën a yéeme mooy laa man suuqan hukmiyan kenn folliwu ko ci xatte faaw nga dañ koy xatte tey bu ñu xatte loolu la mooy nit daal bu njaaloo te fekk amul jabar muy góor fekk amul jëkkër muy jigéen ñoom ñaar ñépp yàlla nee na nañ leen caw téeméer ya yaree leen bu dee góor ak jigéen bu jaree sax ñu génne leen dëkk bi yóbbu leen ci beneen dëkk ñu téye leen fa xat waaw bu dee koo xam ne nag dafa sangewu boroom kër gu dem njaalo ji moo xam góor wala jigéen yàlla nee na nangeen leen rey far ji moohuma albatta na ngeen leen jam bañ dee jam googu aaya boobu boo demee ci alquran kenn bindu ko fa kenn du ko jàng waaye xatte bi mi ngi fi xatte bi mi ngi fi waaw kon nag yàlla nee na ilaa ma sha Allah ci man lu dul la neex yàlla waaw inna woo naka sama boroom bokk na ci itam yàlla ca aaya ba muy waxee naan bu nit isa adra ahadukumul mawtu euh, bu nit bu ko nit dee dikkalee takkatuma aaya ba na def ndénkaane na def ndénkaane na def ndénkaane ñu ne looy dénkaane mu ne na dénkaane ay wuy juróom ak i jege ñaaleem foofa it dañ ko folli kitaabatan ma nga fa xiraatan ma nga fa waaye nag laa hukmiyan lu tax ñu folli ko hukmiyan gis nga mooy konteerul bëre yonent bi moo wax ne laa wasiyata lil waarisi kuy donn du kuy donn kenn du dénkaane nañ ko jox dara te aaye ba saxal na lool loolu borom xam-xami usool yi yéen yu bari nangu nañ ko donte nag boo demee ci usool dañu am ñoo am ñaari xaaj xam ne ñoo dañu ñoom duñ nangu naasiq ak mansuux ñoom dañ koy dàq ñoom dañoo wax ne alquran amul loolu li fi ne daal moo fi nekk lépp lu bind dañ ko war a jàng loolu nag bokk na ci ñu mel ni ahlu siha yeeg ñooñu ñoom dañuy jëm ne gisoo bi yàlla waxee ne euh, dégg nga de euh, léegi euh, sëyeb mutaa sëyeb mutaa dañ ko dañ ko dañ ko supprimé ci diine ñoom dañoo lànk ba léegi ñoom dañ ko daganal waaw sëyeb mutaa mooy sëyeb yobbal kon nag ilaa ma saa alaa mu bokk inna woon naka sama borom yàlla mu xam na aljaara kàddu gu kowe yàlla xam na ko aljahra min al qawli kàddu gu jog ca kaw yàlla nee na xam na wamaa yaxfa ak kàddu goo xam ne dafa nëbbu yàlla nee na boo jàngee ca kaw ma xam boo jàngee ci suuf ma xam yàlla neena li nga naay yoon yoonlu di ko nëbbu ci guddi xam naa ko li nga naay wax ca péncee ca bëccëg xam naa ko wannu yassiruka danaa la yombalal yow muhammad lil yusra ci sariya danaa la yombalal sariya muy diine ji danaa la ko yombal wan yassiruka danaa la yombalal lil yusra ci aljana wan yassiruka danaa la yombalal lil yusra ci jëf ju baax lum ci ne rek yonent yàlla maamal yàlla ne ko danaa la ko yombalal waaye du moom rek képp ku nekk ci diine rek da ngay yëg ne da dem foo xam ne la nga la nga la ngay man ci diine yàlla hinaayetullaay daf cee bokk yàlla lay dimbale waaye ba la dimbale tuutoon doo ko man kon nag mu ko xam na ñu ko firee sax lil yusra boobu al islam mu ngi koy firi foofu léegi nag xam nga yow ma maama nooy def fa sakkir waaree laa wax in na faati in goog bi maanaa lam nga koy firee waaw kay in na faati donte donte du jëri in lam yan faati ngay wax parce que ñu ne waaraate kay fekkee ne du jëri ñu ne konoon yonent kay duñ waaraate ba nit ñi di tuub koo xam ne nga daan de waaraate ñu jàppalu duur lay duuru duur bëgg a bëgg a dee waaraate woo da xam ne njëriñ waaye taxu ñu ba kon waaraate da ngay waaraate dontu jëriñ dontu du jëriñ donte da wax kenn du la déglu waxal rek donte da ngay waaraate kenn du la déglu waxal rek waaraate rek waaw loolu la yàlla wax fasakir waare laa wax inna faati donte du jëriñ laa wax azikra waaraate ga ndax ñu ne waaraate mëntu ñàkkaa jëriñ donte du jëriñ waaw saya sakkaru dana waaru ci waaraate wi ngay waare man yaxsha ka ragal yàlla kana ma ragal yàlla dana ci ragale ndax léegi-léeg nga dajale fukki nit waxtaan ak ñoom kenn rek déglu ci juróom-ñeent yëpp dégguñ la juróom-ñeent ñëpp li nga waaraate seen yoon nekku ci xam kenn ku nekk ci mboolu moo ko xam ne waxuloon dara moom dafa dem te ba nga ba muy départ dem rek la nga doon waaraat yëpp gën na di ko jëfoolu ku la koy waxal moom daa dem rek commencé jëfandikoo la nga waxoon la nga doon waaraate te yow yëguloo ko yow nga jàpp ni ñii ñoo la wédd rek fekk xam ne kenn koo xam ne moom jëriñu ci jëriñu ni ci ba dem même tafsir bi rek léegi la damay toog benn waay ñu tafsir ba at mi passé benn waaye di ma téléphone naan man <laughs> démb rek démb rek démb rek benn jigéen rek maa téléphoné naan maan tafsir daaw déggoon naa nga wax ci nangam ak nangam damaa bëgg nga ma loolu ma leeralal ko loolu loolu doy ko mu jël téléphone jox beneen mbokkam mbokkam ma woo ma waaw ma leeralal ko la nga xam ne mu laa waxoon ci tafsiram daaw léegi nag maa ngi koy wax fii ndax damay jàpp ne man nit ñi dégguñ ma rek wala nangam nangam ma ba ah, ah. moo tax mu ne donte da ngaa jàpp ne tafsir woote gi ngay woote. fàttali gi ngay fàttali donte da jàpp ne jëriñut yàlla ne eh, na nga na nga na nga fàttali rek fasakir fàttali laa wax bu dee nag tafsir bi nga xam ne moom moom la ñu yëpp sama kalaas gi gën a miin mooy fasakir faara fàttali ina faati ndeem dana jëriñ <laughs> waaye in gii du inu ndem tax fiif la amul sidd de ina faati ndeem dana jëriñ ah, du noonu de bu fekkoon daf ne fasakir na inna waaye deful inna bu dee inna la nag kon dañuy wax ne inna gi ñaari ñaari ñaari kem dañoo daje ñu idda xam morom ma da def nag gis téere bu ko bind su fekkee ne nag inna in inna faati la ndem dana jëriñ man naa ne am na ñu koy firee loolu lu baree bare bari waaye maanaam bi dëgg mu fassiroone yi li ñu koy firee mooy inna faati ndem du jëriñ inna faati ndem du jëriñ bu dee loolu nag nga xam ne nag inna nga xam ne dafa am sadd geneen nun toll dajeeg moom suñu dajeeg toujours xam nga dañ koy idqaam hmm? an noonu idqaaman lu tax li sikkiri noonu baax doo ñu ne lu tax mu ne ba noonu mun xuroo fi idqaam dañ koy idqaam moo tax kon inna na rek ngay wax waaye bëgg ne inna gi nun bu njëkk googu danga nga koo dàq waaye nun ak ñaareel ga moom ngay dem def sadd jàng inna googa loolu la ci xiraa la ni ñuy jànge alquran xam naa ñoom xamat ñoom ak mu atin ñoom ñoo jàng yooyu waaye sama xalaat bi ñun <laughs> ñun ci njàngam njàkkalante ma lañ nekkoon <laughs> njàngam njàkkalante xanaa léegi-léeg ñu dem ci baat boo xam ne nag xam nga maxaar yuuroo baax na waaye boo déggu naxu nag léegi-léeg daf laay jàngaloo du xam mooy baat yi may wax ay xam maag ak mim maag yooyu su fekkee jàngaloo ci naxu dara doo ko xam ndax yow dañ laay jàngal ittiqaam bi rek mais nag lox dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba doo ko xam parce que la fa dajee moom nga du xam waaw moom la waa ji waxoon ci unsur gële unsur unsuru unsur unsur baatu unsur laajoon nañ ma ko ci groupe ba ba ma waajoo waxee ne ma am sa lu tax ñu tàmm xam lu loolu buñ ko laajoon ab village boobu mooy est-ce que du nan nati ñaq ba tooy xef <laughs> fekk nag feew la amar toujours bu ñëwee ci baatu araab feew la amar bu ñëwee ci baatu araab nga bëgg nag xam baat baat ba xam sa was lu googu nga jëm nga bëgg a xam loo koy maas ñu ne da ngay tàmbali ci am su waslu nga di compte baatu ñetteel lu mu def nga def bu dàmmee ma dàmmut su defee lu demee nag seet def mu dàmm nga dàmm soo defee fee ka mooy ba bépp feelu amar nag la bépp feelu amar ci alquran noonu la am su waslu la ngay jëli am su waslu nag bokku ci woon moo tax sax léegi-léegi am su waslu su fekkee da nga xam lu ko fetoo gannaaw nga war koo jàng ñu koy taxañ ñu naan dañ koy taxañ mooy da ngaa jël la ca gannaaw rek boole ko moom taxañ ko xam su waslu gi def parce moom lu tax xamut yow yaa ko wut yow yaa ko wuti yow yaa bëgg a tàmbali arab ne man sib naa tàmbalee ci sukkoon nga ne comme sib nga wut tàmbalee ci sukkoon nag kon faaw ma dem wuti may lu ma tàmbalee nga dem wuti alif ñëw bi nga ñëwee nag nga am problème looy maas looy maas alif bi arab bi nag di la jàngal noo koy maas xam nga loolu maxaari joxuroo moom du la jàngaloo moom da lay jàngale rek boo yee da koy taaj rek nga dem moo tax nag loolu da koy gën a da koy gën a leeral dégg ngeen ñu dem ñu dem kon ina faat fa sakkir na nga waare laa wax in nafaati doonte du jëriñ laa wax asikra waaraate ka wala nga jël beneen bi fa sakkir waaraate in nafaati ndem dana jëriñ laa wax asikra waaraate ka waaye ñu ne boobu baaxul moom boobu moom donte xëy na am na ñu koy firee waaye li gën a wóor daal mooy waaraate moom waaraateel rek donte yaakaar ndax xam nga nit ki day yaakaar ne jëriñut fekk mi ngi jëriñ hmm. moo tax buur nee na saye sakkiru dana waaru may yax am nga yonent bi ba muy jàng alxuraan te Walid bun Mughira di ko déglu booba xamutoon ne Walid ak may déglu waaw ah, wax ca wax jëm te moom fa toogoon rek di jàng alxuraan gannaaw gi la doog xam ne nekk gars yi buy jàng alxuraan boo neex bi dañuy yollee di dem loolu nag su fekkoon dafa toog ne kenn dégluwuma du ma jàng problème du am hmm? ah, waaye bi mu xamee xamul loolu waaye yàlla moo ko feeñal na ko gaa yaa ngi lay lay gaa yaa ngi lay dégg kon loolu nag waaraate kër bu ne na ciy bàyyi xel donte benn xale la rek benn xale bu nekk ca jataay ba sax di ko déglu loola mën na koo jëriñ te yonent bi kat nee na booy waaraat wala ngay wax ci diine kenn nit ku ci jub rek yàlla dana dana la fay tiyaabu juttal ne xomru neem xomru neem nag mooy gëlëm gu xonq arab ya boo doon wër gu gëlëm gu xonq doo ko mën a xam ngay wër a wër a wër bay bëgg a ko xam kay daa mel ni patron la day mel ni patron la gëlëm gu xonq na na xamee njëriñ noonu ci arab ya mu ne boo fexee ba kenn nit jubee ci sa wax wala ci sa kàddu mu ne tiyaabu ju toll noonu yàlla bindal la ko aywa sa yazakkaru dana waaru laa wax may yaxsaa ka ragal yàlla duñ ci am di yàlla nee na waaye te jannabuha daañ ko soril moom mi ragal yàlla al asqa ka texee di mooy la Ibrahima Diop doon wax al asqa wa say jannabuha al asqa asqa mooy ku texee di yàlla nee na dañ koy soril boo gëmee yàlla sa gëm wér yàlla daf lay soril euh, dégg nga de ka nga xam ne fa texee di sori gi nag ñaari xaaj la de dafa am sori goo xam ne suru buxdul makkaan la am suru goo xam ne suru maanawiya la waaw lan mooy suri suri buxdul makkaan mooy dangaa dëkk ak moom mu nga xam ne te yàlla xam ne yéen ñii seen dëkk du mën a neex mu fexe fexe ba problème am moom mu dem kooku sori buxdul makkaan la mu génnee fii déplacé tuxu dem feneen yow nga xam liibar nekk fi loolu suri buxdul makkaan la xam ne suri boo xam ne suru maanawiya la mooy man nga naa bokk dëkk ci benn dëkk mais du la dara nag même bu ngeen jotee woon boo moytu yow yaa di gañe bu mu ci mën a doon rek yàlla ne wasay jënn bu al afqa loolu adduna la nag buñ demee àllaaxira itam wasayu jannabuhaa yàlla nee na danaa ko suril al asqaaka texee di te mooy danaa jël julit bi gëm yàlla dugal ko àjjana moom mu weddi ma yóbbu ko safara est ce que kon sori wuñ ah? kii buñ ko jëlee yóbbu àjjana kii yóbbu ko safara ndax sori nañ tontu li mooy aha sorante nañ moo tax yàlla nee na wa say jënn buhal atqa waaw ashqa mooy yéeféer bi rek ak jullit ñu ne kan mooy al ashqa mooy kan yàlla di la ko waxal moom moo laay waxal al ashqa mu ne allazi mooy ki nga xam ne yeslaa dana dugg laa wax annaara safara al safara wu màgg wa wu rëy wa laay dugg safara wu rëy <laughs> safara woo xam ne dégg nga dañuy dugal rek du fees mukk waaw safara amul fees waaw al kubra mooy safara wu réy waa réy réy naarul àqira <clears throat> ñu ne na boo déggee mu ne mu ne naarul kubra li tax mu wax loolu mooy dafa xam naaru suxra ñu ne naaru suxra mooy lan mu ne safara adduna wii mooy naaru suxra safara wii ñuy taal ci adduna mooy an naaru as safara al àqira wale mooy an naaru al kubra ñi weddi yàlla nag yàlla di leen soril ñi gëm yàlla bu leen yàlla sorilee ñooñu ma ngi leen ay dugal moom ci ànnaarul kubra yàlla nañ ci yàlla musal buñ fa duggee nag summa gannaaw ga laa yemootu summa li tartiib laa yemootu dootuñ dee ca àjjana fiyaa ca safara wa kay ji foofu bi maanaa laa yestari woon la bëgg a wax mooy duñ noppalu mukk safara buñ fa dugg amul noppalu safara kay xam nga ne Ibrahima du noppalu kaay <laughs> <laughs> safara safara moom dëgg dëgg du noppalukaay na moom moo tax mu ne su ma laa yëmmootu topp dootuñ noppalu fi yaay ca safara kenn du fa noppalu walla yaa yaate duñu dundati waaw dootuñ fa dund duñ dee duñ dund ci diggante dund ak dee la ngay nekk mu métti rek métti rek yàlla ci yàlla musal xat af laa texe na xat ca dëgg dëgg af laa texe na laa wax kan moo texe man tasakkaa kalaabal laabal bakkanam gëm yàlla man sa kaa manta taxara waaw ka laabal bakkanam ba pare tuub dugg ci diine gëm islaam kookoo laab kooku yàlla nee na texe na de ñu ne dafa waaw ndax dangay gëm ne gëm naa yàlla rek toog tëdd na la mu ne déedéet mu tekki na ko sakka rasma rabbi fasalla gis nga kon gëm yàlla doyut de gëm naa yàlla dong du doyut yàlla nee na doyut xadda af laa texe na kan man tasakka mooy ku gëm yàlla mooy ki sellal gëm yàlla waaye bi mu gëmee yàlla rek ñi ne yàlla rek foofu laay mën a déedéet wa shakara teg tekki di tudd laa wa isma rabbi turu boromam muy tudd boromam rek yàlla mu ne déedéet fa sallaa mu boole ci di julli it ci ko yu ni mu di séede te gi nga ndeysaan boo ko jàng ngay fane du dara waaye jëngale ci yàlla dajale yëpp fa sallaa jaamu yàlla yëpp dugal na ko ci gëm yàlla di tudd yàlla di julli waaw mu ne nag xam nga li tax mu waxoon fële ne gaa yi nga xam ne ñoom dañ koo weddi ñoom dama duma leen boole ndax kii dama ko yóbbu àjjana kii ma yóbbu ko safara mu ne balli fi nekk doomu aadama yi weddi yàlla tu siroona dañuy jeexital alxayaatu dund ba ak duniyaa bu jegee jeex ba ñoom xëdduna lañ gën a bëgg moo tax tu na mooy jeexital moom rek lañ bëgg xëdduna rek xëdduna rek lañ bëgg comme nag ñoom adduna rek lañ bëgg moo tax yàlla du leen dugal àjjana ku bëgg adduna yàlla def naa la noosal rek noosal rek loo bëgg mu may la moo tax yonent bi ba mu koy firi daf ne addunya sijnul mu'mini waaye nag wa jannatul kaafir ko yonent bi woon mu ne adduna ñu ne ah mu ne mooy kaso jullit jullit xam nga kaso du dara mooy <laughs> bul dem barab sàngam bu lekk barab sàngam fii ngaay toog fii ngay nekk fii ngay loolu mooy kaso te jullit loolu la nekkee ci kaw suuf bu gaa yi nekk ci làmb ji di musique di musique ka fecce mu ne la bul dem waaw bu gaa yi nekk ci futbal ba ak caaxaan mu ne la bul dem gaa yi di tëgg mu ne la bul dem gaa yi di naan sàngara mu ne la bul dem nga génn ci mbedd mi di dox mu ne la sëggalal sa bëri boo ne ko nàng mu ne déedéet boo séenee la na nga sëgg gis nga kasongu bu lekk jotee nga war a lekk dem ca baar baar ba dem marché ba di jënd mu ne la lii ngay jënd nga ne lii laa jënd moom laa bëgg mu ne déedéet lii ngay jënd boo demee ca fañee naanee bëgg naan mu ne lii ngay naan nii lay nekkeek moom lislaam nii lay nekkee yow rek fu mu toll loo bëgg a def du la libéré tëdd sax boo bëgg a tëdd mu ne la ndajoor ngay tëddee tëdd laaw tëdd sa salal bi di noppalu téere yi ngeen ndeyjoor ngay tëddee damaa bëgg a jegaru mun a jël a tànk loxoom ndajoor bi teg ko ci sa kii bi def nii na bismika laaw allahumma yaa wa amuut loolu la nit ki wax buy tëdd nga jël sa loxo ndajoor bi ni tëdd waaw soo demee bu guddi nga yeewu yëg ne kat jàllal bi ku guddi guddi ba tëddee ak càmm bi nga yeewoo noonu ba yeewu ba yëg ne nekkaan naa nit ndax xam nga nalaw déggu ndaw la boo yeewoo ba yëg ne naa nit nga xool gis ne eh, man mooy tëdd ndeyjoor laa tëddoon waaye léegi maa ngi tëdd càmmooñ ñu ne jàllar bi kaatu nga dell tëddaat ndeyjoor jël sa bu fekkee gege na ngaa def nga jël sa loxo bi nga gege na ko jël bi teg ci nii nit bu dee biir bàmmeelam nii lay def nii nii lay def nii lii lay tëddee jàkkaarloog boromam moo tax boo tëddee ci sa biir lal bi ñu bëgg soo manee sax nga orienté sa lal bi nga jublu penku nag ma hmm, soo manee nga orienté sa lal bi nga jublu penku moo sama lal ba ne boo demee ko def de diine da ngay ànd di dur di dox. ah jub jublu waaw jublu nii waaw nga jublu nii rek jublu nii waaw. waaw jublu penku waaw waaw kay loolu la boo tëddee nii nga jublu penku loolu laa wax loolu lu baax la boo demee ci kalifa yu bëri seen lal yi ca penku ba lay nekk yu bëri seen lal yi ca lañ koy def ca sow ba ca sow ba laay nekk jublu penku bi kalifa yu baree baree bëri bu ñu tabax seen nees sax daañu ca sooraale loola ñu baree baree bëri wala bu ñu ko defee ca sow ba it waaw wala bu ñu ko defee ci penk ba it ñoom bu ñuy tëdd kon dañoo wan gannaaw néeg bi te xam nga loo gënu tëdd wan gannaaw néeg bi benn waaye mën naa tëdd dugg ci <laughs> néeg bi def lu ko neex dem yoonam waaw tëdd li ci gën mooy nga tëdd jàkkarlook néeg bi waaw nga xam ne boo boo defee nii rek xool gis waa ci <laughs> kii ab waay la buy buy am lu muy yollin aywa kon ji nga kon ji nga la ma waxoon yonent bi nee na adduna ñu ne ah mu ne kasoog jullit la waaye ajjanaa yéeféer la xam nga lu tax yéeféer moom fañ ko terewu dara bu demee ca marché bi li jënd moom mooy seetal bopp boppam lu ko neex jënd lu mu jënd yi lislaam na ko sama yoon nekku ci bu ko neexee mu dem njaalo bu ko neexee mu dem boîte de nuit bu ko neexee mu dem ca làmboja bu ko neexee mu dem lu ko neex mu dem seetaan yi waaye jullit sañu ko sañut lu ko neex mu dem kon mu ko loolu nag mooy baltu siroonal xayaatu dunya wal aaxiratu waaye alaaxira nag moom fonkoon alaaxira ak fonkoon lu lay jural aw xiwu ci alaaxira xayru moo gën fuuf ndax alaaxira kat moo gën xiwam wa du jeex wa abqaate mooy des mooy li nga xam ne lépp dana jeex mu des moom alaaxira kon nag defal alaaxira moo gën inna texe gi inna haasa ngóor su baax sii laa wax jafal yàlla lim ko war a defal lii ma wax la soo fi moo nekk ci téere yi al ulaa yu ya yëgal yëf kat benn yëf benn rek la Ibrahima mu njëkk ma yonent yàlla Ibrahima la mu nekkee woon lii la mbaax gii ñu wax fii moo fa nekk yonent yàlla Moussa mbaax gii ñu nekk loolu ci la nekkoon Insa mbaax gii ci la nekkoon yonent yàlla Yunusa ak Yuusufa moo tax yàlla ne la fi soo fi wala looloo nekkoon ci téere yi njëkk ya ban téere mu ne soo fi Ibrahima téere Ibrahima rek mu ne dee dafa Moussa ak Moussa te ñooñu ñooy ulul mi yi ñooñu ci ulul xasmi yi lañ nekk di ñooñu kay koo xam la nga nekk yaa loo nekk sant itaq sa laaw lan Ibrahima lan xalila Ibrahima yàlla jàpp na ko xarit kon boo nekkee ci la Ibrahima doon def yàlla jàpp na la xarit donte waxu la ko hmm? waaye wa kalama laaw Moussa takliman Moussa wax naa yàlla kon boo nekkee ci la Moussa doon wax nekk dëgg-dëgg mu ngi mel ni yaa ngi wax ak yàlla bokk kalimu la kon moo tax nekk ca loola loo xam solo la su ko defee kon akana foofu la saar soo fi Ibrahima wa Moussa. waaw suratul xaasiyati xaasiya nag tur la ci bés pénc alxaasiyatu li muy firi mooy muur tur wi nga xam ne lépp lu nekk ci àdduna dañ koy muur dootu xamati jàkka yi le dootul xam marché yi dootul am lépp mooy manque mooy mooy mooy muuru dara dootu fi nekkati luy ñëw leneen lu bees mooy dikkaat beneen dund bu bees mooy dikkaat asamaan seneen moo fee nekkaat waaye du doon sii suuf sii dootu fi nekk ñi ngay dem suuf su ñu tudde ardul bayda foofu la yàlla xattee jaam moom nga jàngoon ci saawale mu ne bis saahirati suuf soosu ci la ñuy dellu su ko defee nag xaasiya mu ngoog xaddadu kalimaatiha li mu baati saar wii di alxaasiya soo ko doon xool dangay ngay wax ne baat yi quatre vingt la lu xam solo la nag li war a waxtaane tey ci kii bi ma ne leen tur yàlla yi dafa am ay code saar wi kon tey dafa am code de bu rëy code bi mu xam mooy quatre vingt la jàpp kalima te xam nga quatre-vingt-douze mooy Muhammad waaw Muhammad boo ko calculé quatre vingt la laay jox de ama kon saar wi jàpp na code bu rëy rëy rëy rëy code waaw code secret la jàpp bu ñëw 92 mooy Muhammad boo bëggee xam ridda Muhammad rek jàppal 92 waaw waxaat duuroo fi haa li mu ay xarafa moom suratu Qaasiya 378 la ñetti téeméeri xaraf yu tegal juróom-ñaar fukki xaraf ak juróom-ñett waaw soo ko multiplier multiplier par 10 nag moo lay jox tiyaabo yi ngay xam buñ jeexale saar wi ñu multiplier ko par dix ñu dolli ca zéro mu nekk trois mille sept cent quatre-vingts trois mille sept cent quatre tiyaabo suñ jeexalee saar wi di xaasiya moom lañ cee xam xamaat trois mille sept cent quatre-vingts de yoo xam ne dañu koy jéggal ci ay bàkkaar ma ne kon li xumm na te neex ba dee de yàlla nañ ko muudoo nag yàlla nañ ko muudoo tartiibu nuzuul nag tartiibu nuzuul yi si suura toftalaan teg wàccuk saar wii bam dalee ca suuratu iqra teg musamil mutasir muy dem boo ko toppee di kontu saar wii nii nii di xaasiya mooy juróom benneelu fukkeelu saar ak juróom-ñett ci wàcc soo ko seetee nag tartiiban min suratil fatiha sumal baqara wa ali imran ila suura moo nekk quatre-vingt-huit saar juróom-ñett fukki saar ak juróom-ñett lay tombet moom suratu xaasiya waaw suratu xaasiya nag moo moromam ñu ñoo yem waaw saar woo xam ne yonent bi fonkoon na lool di ko jàng ci farata julli farata lu mel ni tisbaar tàkkusaan yi mel noonu fonkoon na di ko ci jàng saar la woo xam ne moog saar yi ko jiitu ñoo niroo day wax lu jëm ci yowmal qiyaama ak la ci xaju wax nañ ne man admana qiraataha fil faridati aw fi naafilatin xasaahu llaahu bi rahmatihi fi dunya wal axira te it wa ataahu al am na yowmal qiyaamati min hasaabi saar wi de ku koy jàng nee nañ ci farata julli farata mbala nga di ko jàng ci naafila yàlla dana muur yërmandeem ci adduna rek mën a déedéet wal axirati yàlla dana la muur yërmande ci alaaxira rek mu ne déedéet wa ataahul am na yàlla dana ko def sikki dana ko may sécurité kóolite kañ yawmal qiyaamati kere bés pénc ana ci lan lay wóolu lan lay wóolu mu ne min haasa dana mucc ci safaraaw safaraaw yawmal qiyaam ëllëg ci ku koy jàng wax nañ ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'uhaa fil jumaati yonti yàlla Muhammad sang fonkoon na saaru yi ba di ko jullee julli jumaa waqiila kaana yaqra'uhaa fi suhri yonent bi daan na ko jàng ci tisbaar wal hasri yonent bi daan jàng sóoratu xaasiya ci sóoro ci julli tàkkusaan kasiiran nag waaw lu bari la loo xam ne ni kii solo hadis bi nee kenn mënu koo takk li yonent bi jullee jumaa jàng ca sóoratu xaasiya te kenn xamul mu toll li yonent bi jullee tisbaar sóoratu xaasiya mbaamu mu jullee ko sóoratul hasri loola kenn xamul mu moo tax jëlee nañ ci sallallahu alayhi wa sallam mu ne man admana qiraataha aasabahu llahu xisaaban yasira képp kuy faral di ko jàng moom suratul xaasiya moo xam ci julli wala lu dul julli ngay faral di ko jàng di ko bàyyi xel bu baax na nga yëg ne yowmal qiyaam yàlla dana la regle régler bu yomba yomba yomb sa mbir lépp ay yomb yal na yàlla boole ñu ci ñooñu ñu dem suratul xaasiya màkk la wàcc ñaar fukki aaya la ak juróom benn ñu gaaw ndax ñu xam yiw yiw ma wax nii bële moom buñ demee buñ ko tàmbalee ndax buñ ko waxee suñ xel ne ci te mën naa duñ ko mën a mottali waaye bii moom ñu góorgóorlu faxe mottali parce que mu amul xisa amul xisa xaal ataaka ñëwal na la laa wax yow Muhammad lu la ñëwal hadisul xaasiyati waxtaanu bés benc mu ne nga ne xaal ci dëgg-dëgg bi maanaam xat na la ataaka ñëwal na la hadisul xaasiyati waxtaanu bés penc ñëwal na la wu jowun kerek dana am ay celmaay yow ma isin kerek laa wax xaasiatun aju muuru laay doon calmaaye daay mel ni lu muuru du muuru waaye day mel ni lu muuru mooy jaxle ngay leen ay jaaxal mooy dem ba mujj gi seen xarxaram yi day leen a tërës ndeg jaaxle waaw ndax yow ma tasalu kullu murdihatin xama ardahat kerek wa tadaw kullu saati xam leen am laa kerek wa tadaw naa sa sukkaara uma hum bi sukkaara walakin xasaba la yasadin yàlla nee na keroog da gis jigéen joo xam ne dafa xëmboon day xëy rek doom yow matu wàcc waaw nit ñi ñëpp nga leen ay gis nga foog ne dañoo màndi ñuy tërës tërës di daanu looloo tax yàlla na wujuhun yawma sin xaasiya aamilatun dañoo mel ni ñuy liggéey naasibatun ba sonn ndax yowmal qiyaam liggéey amu fa waaye safara si ñuy dugg di di di lakk loolu laay tuddee aamilatun naasiba ñu takk leen ay manoote ay jéng jéng yooyu ñuy ñoddi nag moom laay misaalee liggéey waaye àllaaxira kay amul liggéey moo tax kon xaaminatun dañoo mel ni ñuy liggéey naasibatun ba sonn waaw taslaa daañu dugg ñoom yéeféer yi naaram safara woo amiya safara wu tàng jër lay doon buñ bëggee naan nag tusqaa daañ leen man nandal ay nin ci bët muy sawnde mbaa géej aaniyetin gu tàng géej gu tàng lañ leen ay nandal laysa lawum ñaalu leen ca ca safara woowa taamun ñam ilaa min darihin dara ñam woo xam ne kon kond kond doon komb komb garaba komb komb googu xànd ak wu mel noonu la ñuy lekk waxoon na komb komb de waaye doomu aadama bii dund ci kaw suuf komb komb la xam yàlla ne komb komb ak diggam yi na muy mel ñu nekk safara lu ko lu ko mel moom la lekk waaw garab googa nag buñ koy lekk laa yusminu waaw du mën a reggal de la lekk bay suur bay bëgg a dee te doo suur walla yoo nii du jëriñi tamit min jooyin ci xiif booy lekk du tax nga suur ndax mënut jëriñ xiif dara te faaw nga lekk ko ndax sa sa xiifaay sa mar dafay toll loolu mooy kuréel bu bon bi yàlla nañ ci yàlla yàlla nañu hump boobu moom yàlla buñ ca bokk deuxième kuréel baa ngi nii wu joowoon am na ay cëlmaa yow ma sin kere ñoom naahimatun dañoo leer nañ nag naahima dañoo leer nañ waaw ah, lu tax mu ne li saxiyaha ngir jëf ja nga xam ne ñu ko doon jëf ci àdduna jëf ja daa nekk raadiyatun jëf ju ñu gërëm jëf ja ñu doon jëf ci àdduna jëf ji ñu gërëm raadiya la mooy jëf joo xam ne yàlla foo ko bëgg moo tax bu ëllëgee yowmal qiyaam yàlla nee na fii jannatin daa ngi nekk ci ajjana joo xam ne aaliyatin ju kowe la ajana ju nekk ca kaw la nga nekk laa tas moo àjjana jooju gu fa dugg nag laa tas moo doo dégg fiyaa ca àjjana ja laa xiyatun waxi caaxaan amu fa amul waxi caaxaan de waxi dëgg rek gisoo mu ne àjjana <laughs> bi buñ fa dugg xila salaaman salaaman rek nga fa ko ca aay ne leen wax leen salaaman salaaman rek ñu ne jàmm-jàmm foofu amul sax gis nga bi nakirati laa bi laa bil maarifati bi nakirati laa bil maarifati bi maarifati salaaman salaaman jàmm jàmm mooy jàmm koo xam ne mu dagg ndax boo assalaam dafa am fu mu yem aywa laa tas moo doo dégg fi a caa jën ja laaqiyatun waxi caaxaan laa wax fi a nekk na caa jën ja xaynun dex laa wax wala géej goo xam ne jaariyatun day daw mhm. fi a nekk na ca jëja ja ajjana jooja sururun ay lal marfuatun yu ñu yëkkati lal yu nekk ca kaw yu rafet macha allah waa kawaabun ak ay kaas kaasi xaalis kaas ay kopp yoo xam ne mawduatun dañ leen rancélé teg waaw boo soxlaa rek kaas bu ñëw taxaw nga xel moo xam sàngara moo xam étaay moo xam café xam naa gaa yi ñoom café <laughs> gaa yi kursu kafe moom bu demee yàlla nee na foofu am na café de café Touba goo xam ne dañ koo segg segg kafe café Touba goo dañ koo segg macha allah dégg nga mu neex neex boo xam boo koy naan di toqantu yàlla nee na boo demee ma nga fa <laughs> waaw café Touba gu neex ma fa soo bëggee nes kafe ma nga fa soo bëggee café Touba ma nga fa waaw soo bëggee sàngara ñu xelli la waa ko waa bundaal la mawduwa boo demee itam lal yooyu war na maa riqu danga fa fekk ay njegenaay yoo xam ne masfuufa dañ la raasale fu la neex tëdd njegenaay yoo xam ne amul boor xam nga suñu ngeganaay yi dañ am boor buñ koy waaye ngeganaay li amut boor ndax lal bi boo xam ne lu la neex tëddee rek boo tëddee caanaay ngeganaay ko boo tëddee nii ngeganaay ko tëddee nii mooy masuuba wa saraabiyu waaw ay tàppe boo demee ci àjjana lal ya néeg ya xam nga doomu aadama comme dafa sob lu ne xelam ci boo amee néeg bu rafet boo xam ne dañ koo tàppe karole ko defet ba mu jag sa xel day bëgg dañ daj li que bu moo demee àjjana dana am néeg bu mel noonu yàlla na ah kay nee boo xam ne dañ koo tàppe ba mu dañ ma nga fa wasara biyu mooy nee bu ñu tàppe dégg dañ ko tàppe laa wax tàppe yoo xam ne mabusu sax dañ ko lal kole ko xamul du ci dëgg di fakkatalu comme si ñi gis rek léegi-léegi nga fakkatalu muy tëb waaw yoo àjjana yoo amul yàlla nag dafa bëgg doomu aadama yi yéemu ci lim def mu ne leen waay yéen tëm daal yéen ñàkk xalaat xool leen afala yansuruuna man ndax du ngeen xool laa wax suñu xéefaar yi màkk ilal ibili jëm ci gélém xool leen gélém yi laa wax kay fa xuliqat ni ma bindee gélém yàlla nee na kéemaanan ci de waaw xal xool leen gélém yi ni bindee waaw xool leen gélém ni bindee dafa am kéemaan mu ne waqu chat al ibilu li kasrati manaafiha gélém daa bari njëriñ ka akali lahmiha bu la neexee nga rendi lekk yàpp wa wa surbi labaniha bu la neexee nga ratt naan soow ma wal hamli alayha bu la neexee nga war jël say bagaas teg ci ko mu yóbbu la wa rukubiha bu la neexee nga war gëlëm gi wa tanaqulu alayha nga taxulu dem réew réew ci gëlëm ilal bilaadil bahida réew yu suriya wa ay wa ay soha moom gëlëm bi ay nabaatin akalat gëléem xamul garab gum bañ lépp lay lekk moo fi gën a neex a yafal gëléem nee na xamul garab gum bañ waaw ka sajarati wa sawk garab goo xam dég boo joxee gëléem moom mu lekk gëléem mooy dem ci siddee ma wala euh, dégg nga de garab yi dég mu dugal gémmiñam di lekk yoonam nekk ci dég yi wa sabriha gëléem dafa mën a muñ xalal xata si xasarata ayaamin gëléem rek moo mën a am fukki fan du naan te du ko yëgal yaram fukki fan yu ma sëkk ndox du dugg ci gimiñam fa ak sara hmm? wa tawaahiyataha li kulli man qaadaha walaw saqiran wa nuhudiha wa waye barikatun bil amali asaqila waaw mu ne gëléem bokk na ci euh, kéemaani gëléem mooy gëléem mooy koo xam ne bu nekkee ci kër gi day nangul ñëpp dana nangul xale yi ci biir kër gi nangul mag ñi xale bi bu soxlaa gëlëm gi day ñëw ci gëlëm gi ne ko xum gëlëm gi yëg ba ca kaw toog ba jag daal na xum gëlëm gi départ dawa dawa daw ba doyal xale gi wax xaa gëlëm gi ne ko xif taxawal mu ne ko xif mu ne barik gooral gëlëm gi daal di àgg suuf goor loolu xale mag la ci xemale gëlëm mu ne bokk na ci kéemaan yi ko yàlla may muy lool bokk na ci kéemaan ya mooy sa bagage lum diis diis gile moom teg ba mënatu laa teg rek loo ko xen mu teg mu dem yow yaay tega tega teg ba ne man fu ne man dayal naa mënatumaa teg waaye boo ne acca bu ne bëreet ko fekk doole dooleem daa am doole ngaay tega teg di takk takk baraan lii lii day day daanu parce que moom it nag xam nga yaram li ko yàlla bindee boo takk xam na nu nu mu kowee ba ëpp boo moytul man naay man naay mën naay daanu waaye loo takk ci kaw nga xam ne tegu ko ci ko gannaaw gi ba mu dëgër ba nga xam ne bu ne bëreet du daanu buy bëreet yóbbu ko ndeg doole ju yàlla may waaw wala tuusi man watte aha birig liha gëlëm mooy koo xam ne du du lor du lor ci tànkam bi dara mooy daw dajeeg picc wala mu romb dara jàggi ko du ko dëgg wax nañ ne bu gisee loo xam ne dafa yaakaar ne day lor ci euh, ko war mu mu mu dóor ko bu gisee jaan dóor tànk bi mu dee mu jàll te mi ngay daw de di doxi soxla te ni muy dawee ni di yële yële gi nit gimi gi bopp bi nekk ca kaw nga foog ni gisu dara fekk lu lu traversé ci kanam mi ngi lay gis loolu yàlla may na ko ko moom gëlëm ah kéemaan wa tataasaru bi sawti alxasa ku neex baat la itam nag xalsu ak baat yaa mu ne jagañ ba daa dëgër wala say amina xaywaanaani say xaywaanaati jamono asil asiyaay xayraa mu ne amut li gëlëm dajale moom rek moo ko dajale. ci mala yii yëpp li nekk ci biir gëlëm ci gëlëm rek la nekk nekk ci beneen mala ci ay xéwal ak la ci xaju yëpp ci mën a muñ itam nag bu ko neexee nga dem ba ci xàll ba wëcc ko fa mën na faa nekk bay saxee du jox gëlëm boromam yóbbu ko ba ci xàll ba ne ko góoral fii tëdd mu toog fa du lekk du naan fukki fan ak lu teg mën na faay tëdd ba boo moytu yoonam da ngay dem fekk muy soppeeku waaye du jox di xaar boromam rek fig dikkut ba na ko jogal du jox loolu rek moo koy man soo ko bàyyi nag muy wëtt man nga bàyyi nga ko muy wëtt muy dem du réerit nag fu ne nii boo ko jëlee fii ci senegal yóbbu ko gaa yóbbu ko gànnaar foo ko mën a yóbbu ci biir gànnaar ak lu sori sori sori bu bëgg ñib si ñib boppam du gëlëm mukk moo tax boo demee ci téere yi ba ñuy jàngalee fof fif li ñuy tuddee fif ak li ñuy tuddee for boole ca gëlëm ñu ne kenn du ko for lum sori sori boromam day ñibbi gëlëm kenn du ko for xar nag nee boo ko fekkee ci yenn xàll ya foral yóbbu ca kër ga soo gisul borom bu la neexee lekk mhm. ndax moom mën naa réer réer boo xam ne borom dootu ko gisati mukk ndax xar moo xam ne dafa bàyyi ko fii Sénégal dem gànnaar kañ la ko bari waaye gis borom dootu ko mën a gis waaye gëléem nag bu génnoo réew ak morom ma boo gisee bul jël bàyyil mën naa ñibbi bu koy buy bëgg a ñibbi ñibbi kon du réer du gëlëm gëlëma ko acca ñu dem moo tax yàlla ne yàlla nag wax waa màkka yi ne leen xool leen ko su ngeen koo xoolee da ngeen ci yéemu te man yàlla maa ko bind kenn bindu te la ma waxoon ci asamaanu suuf ba tey xamul kenn ku déclaré gum ne moom moo bind gilem yàlla rek moo ko wax moo tax ne afalaa yansuruuna ilal ibili ma do ngeen xool ibilu ibil mooy gilem kayfa xuliqat ne ma ko bindee wa ila samaayi nga teen asamaan kayfa rufiat ni ma ko yëkkatee wa ilal jibaali nga xool doj kayfa nusibat ni ma ko sampee ba mu dëgër wa ilal ardi nga xool suuf kayfa sutaat ni ma ko tàllalee yépp xool ko waaw xool yépp fasakir na nga waare laa wax yow Muhammad innama anta xamal ne yow musakkirun waare kër nga yow waare rek la war daañ gëm ak duñ gëm bu yoon nekk waare rek musakkir lasta alayhim déet yow ci ñoom gaay yi bi mu say tiri nga leen di di leen forcé boo ko bëgg a dégg da ngaa wax ne lasta déet yow Muhammad bi mu say tiri ngay commandé mooy ngay forcé alayhim ci ñoom dégg ko de koy firee mu leex ba lasta déet yow Muhammad ñu ne ah nga ne bi mu say tiri ngay commandé ngay forcé alayhim ci ñoom yow doo doo leen force yow daal li nga man mooy wootee rek toog di waaraate ku gëm baax na ah ku gëmut itam baax na ah ilaa man tawalaa bis nga illaa googu do harfu istisna de waaw ah, mu ne ilaa bi mën a laakin la waaw ah, léegi nga dem ci alquran istisna yi ñëw ñëw nekk taxawaayu laakin waaw ah, léegi-léegi itam harfu xatif xatif yi ñëw waaw yooyu au lieu ñu nekk ci harfu xatif waaye ñu nekk xatful munqati xatif goo xam ne daa dagg léegi-léeg nag boo juumee nag ba def ko harfu xatif rek yàq wax ji yëpp wala nga boole ca la ko bokkut lu ca bokkut ilaa man tawalaa waaya ki du nag wa kafara mu weddi yàlla yàlla moo jël engagement boppam ne fa yuazibuhu dana ko mbugal kan laahu yàlla lu mu koy mbugal mu ne alxasaabal akbar mbugal mu màgg ko yàlla mbugal inna ilayna ci man ngeenaay dellu hmm, bu la neexee nag da ngay na ne boobu gis nga naka seen ak dellu ñu amu ah, ne ilayna ci man lay doon ci man ngeen ay del si yéen ñépp xam nga inna xaraf buy nasab la kon ka iyaaba moo nekk lisimi inna du ah, moo nekk lisima inna ilay naa del si na ci man iyaabahum wala nga ne inna iyaabahum naka seen ak dellu ilay naa ci man lay doon man laay doon de ci man yàlla ngeen di del si yéen ñépp summa inna i summa inna xisaabahum mu ngoog summa inna xisaabum naka seen ak réglé ñu ne ah mu ne xale naa ci man lay nekk ci man lañ leen a réglé si itam bu la neexee nga doo bu la neexee nga ne inna summa inna xale naa topp topp dana gàllu ci man gis nga firi lii du benn topp dana gàllu ci man laa wax lan xisaabuhum seen ak réglé nga dugal foofu lan googu <laughs> su ko defee nag euh, loolu day neexal firi bi day tax nag maanaa bi nit ki mën koo dégg. waaw waaye daal firi bi gën a neex nga firi ko ci grammaire mooy summa inna xisaaboom topp seen ak réglé ñu ne ah nga ne àllee naa war na ci man kon man la ma yàlla nee na moo warlu yowmal qiyaam na mooy réglé jaam yi kenn ku ne la nga war a nekk nga nekk ca fa nga war a dugg mu dugal la fa bu dee ajjana mu dugal la ajjana bu dee safara mu dugal la safara yàlla nañ bokk ci ñu dugg aljanna sadaqallaahu al-asiim wa ballaqa rasulul karim wa nana ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna maulana min as-sa'idin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil